dégg sank ngay lim seigne Moustapha Trésor way ya ngi lim ñi nga xam ci ñoo nekk kudd bu kaw Kaolack Ousmane tiam impôt et domaine ngeen ni say xariti bop ki UGTL euh, PDS nekk foofu ci diwanu lewna ñom baran kan jugee ci gox goxani yi nekk ci Mbor seigne Abdoulaye Diop jambar ma ngi ni di jàmbaari fak dëkk gàcce ngala ma mata ba nga dajalé ñi ci commune bu ci waaye nak sama bay ndongo gay mais jugee ba diwanu toro Bay ñew nak daa ne ma Modou ñew na toro ñew na jërëjëf waaye rek seen mbir. Daouda Dieng. Baye Daouda Dieng. Cheikh Daouda Dieng mii nga xam ne si moom tamit jàmbaari fàkk dëkk ku ko xam xam ni lépp loo xam ne si yaa ngi koy gis mu koy dox bul laaj lu jëmee Mbawar kanam rek ci lay dox guddi ci lay dox bëccëg sëñ Daouda yal na sa jàmm yàgg waaye nag du ma fàtte monsieur Magam le grand coordinateur Magamu Sow. sama xarit sama soppe ma gàmmu jàmbaar jàmbaar parce que ma gàmmu yàlla na sa jàmm yàgg sëñ Mbaye Diop nga xam ni si moom tamit di kenn ci ñun di kenn ci ñun kenn ku nekk xam taxawaayam ci biir Mbawar mën naa fee nekk di ko lim waa Baye Diop waa Baye Dieng Barba ñëpp tey ñëw nañ fii nga xam ne si moom mooy ci bés jërëjëf sëñ Daouda bu doon boo ma ko joxee ma benn baaraam denc ba léegi kuñ na kon nag mu ngi noon du ma fàtte nag boo xam ne buñ ko waxee ñëpp dana ne gàcce ngalaama muy sama xarit di kenn ci man muy monsieur Bàcc Bey Bàcc di jàmbaar joo xam ne sii boo ko déggee mu àddu da nga xam ne borom xam-xam la jàngam la jàmbaar la. borom mu fit la waaye maam yàlla doonu nag ku sant bee nag du ragam jenguma nag mu ànd ak yaba tey sëñ Xaadim ma ngi nii sëñ Bichri ñoom ñëpp waa Touba Saare daaw kenn desul kon dañuy daal di dem ci parole yi rek. jébbal kàddu gi Ousmane Thiam mu nuyoog mbooloo mi bu defee ñu daal dem. <laughs> jërëjëf am nga <coughs> asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokku ceeb maa ngi nuyu borom dëkk bi maa ngi nuyu imaamu dëkk bi xam nga xam nga xam nga Baye Jaaja Mbay dafa am kàddu gu muy wax Baye Jaaja Mbay dafa am kàddu gu muy wax boo xam ne man ceeb moo tax ma gëm ko dafay wax booy seet goreet yi demal seeti ko kër gaaw a fàtte waaye ku dëkk ceeb même marché Kébémer sax su ma la gisee di nga ma ne yow de yaa ngi njëkk a indil kon nag loolu mag leen si sant maa ngi leen siy gërëm Matar encore une fois ñu ngi lay féliciter di la encourager ak responsable yi nga àndal yëpp euh, dama fi fekk nag koo xam ni sama kilifa la si wàllu dret muy Pape Ali Dieye ba may jàng moo ma daan jëndal ay livres. ma may jàng moo ma daan jëndal ay livre waaw kon moom bu ma ko fi fekkee warumaa yëkkati kàddu si kanamam moom sama kilifa la si wàllu deret grand maa ngi lay ziar namm naa la waaye Ziguinchor sori rek yoo xam nga ni duñu réeroo di nuyu aussi mbay Diop di nuyu ma Magamu Sow di nuyu Ablaye Diop responsable yi ma fi fekk yépp maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu aussi Cheikh Mboub ak Mbaye mii nga xam ni moom mooy suñu relève si UJTL maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp dafa fekk ni nag dañu nekk ci liggéey boo xam ne dafa xaw xat ndax bi may jógee Kébémer di ñëw am na ay délégation yu ma ne man leen foog ngeen xaar ma ma dem ceeb te ñëw am na war naa dem euh, Gaddafe war naa dem Corom waaye ceeb moom day loo xam ne duma ko booleek dara ndax dañoo gore lool waaw maa ngi nuyu itam kilifa diine yi fi nekk yëpp dégg naa léegi ñu tudd fii euh, ku ñuy wax maam naa waaw waxaayatu ñoom ñoom ñoo ñu kulóoral suñu suñu àdduna kilifa diine yi léegi nag xam nga am réew moom bu fekkee dafa am lenn muy am suuf am lenn muy am ndox nit ñi dañoo war góor góorgóorlu ñu taxaw liggéey ndax liggéey kese mooy jëmale réew kanam damay wax ne li ñu am di ko investir ci ci ci infrastructure yi bis bu ñu jëlee décision am autorité yoo xam ne gàddu nañu loolu nga xam ni mooy investissement yu mag yooyu ñu investir ko dans l' agriculture xoolal boo duggee ci zone ñaay bi grande ñaay bi Mboro ba grande ba aménagement de la grande côte ñu ñu dem ba Saint-Louis xam nga loolu autosuffisance en a autosuffisance alimentaire si denrée de premier ministre mën na fee ja jógee dootu ñu jéggaani dara si wàllu lu ñuy lekk boo demee Casamance àll ba naat na kon nag li ñu war a def mooy fexe ba. nit ñi tundu yi ñu mom ñu sécuriser souf ci cela veut dire que tamit ñun tamit bu ñu jël rek né li sama tolu mam la won sama tolu mamat la won looloo dañuy dem outil ay këyit ndax juk dem outil rek la procédure rek la amul fay amul dara da ngay dem nga ut géomètre mu utal mu nattal lako nga demander régularisation parce que souf ci ñepp ko bokk alalu buur la su ko défé nak ñu mu nekk lo xamni sa yef lay doon wala sa yefu famille lay doon ñu sécuriser ko mais ñu jéem ci liguey parce que jël suuf rek téye ko nii tam te duñ ci liggéey loolu amul njariñ suñu doom yi ak suñu rakk yi ëllëg si biir dañu war a relever ndax li ñu jaar si àdduna bi àdduna bi ku la ni woon mën nañoo toog benn bës benn avion du daw benn oto du daw nga ne déedéet loolu munta am mais def nañ fi presque ñetti weer yoo xam ne avion naawul dara naawul dund gi bu fekkul woon nit ñi am loo xam ne mën nañ ko dundee fii day metti kon nag loolu daf ñu war a jàngal ni ñun il faut ñu gëm suñu bopp gëm suñu bopp mooy defar dëkk bi defar dëkk bi mu ngi commencé ci suñu biir kër loolu mooy lan mooy yow mi ci biir kër gi da ngay defar sa kër ñu génn defar koñ bi koñ bi defar quartier bi quartier bi defar commune bi commune bi defar département bi département bi defar région bi région bi defar Sénégal kon il faut ñu gëm loolu il faut ñu gëm loolu pare loolu ñu am ñu nangu nag am ay kilifa parce que nit boo ko fekkee muy liggéey ci dara ba bejjaaw ci boo ci bëggee barkeelu da ngay topp si ginnaawam da ngay topp si lu for nga wadd ndax ko gis ñu naan ko goor gi ci ngor ci la commencé won bu dem dem dem dem dem dem ba ag ci goor gi kon ñun ñi nga xamni ne ñoo nekk ci nga xamni ñu ngi tollu ci ñu naan ñu ngor ci nañu leen nango top ci goor gi ñu jappalante bu baaxa baaxa baax ma ngi leen di jox nak euh, nuyo monsieur le maire de la commune de Kébémer Mohamed Lamine Thiam parce que mom ci bopam nee na dafa bëggona a ñëw teewee ci assemblée générale bi mais dafa dafa dem au dernier moment mu am ay xat-xat yu ko téye ak association des maires du Sénégal loolu daal moo xam ne Matar encore une fois ñun ñu ngi leen di encourager ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di pare pour encourager leen pour ànd ak yéen ci lépp loo xam ne dina jëmale gox bi kanam ñu ngi nuyu aussi suñu frère sori na waaye xam naa ne tey ku lamb xolam wala ku lamb xelam di ko ci dat muy bàcc bi ñu ngi koy nuyu di ko sargal yéen nag waa dëkk bi awma seen fay yéen yéen a ma gën a gore fuuf lépp lu ma leen defal rek yéen ko mérito mérito ngeen ko ëpp man nag daa nekk ni loo xam ni euh, sam dafay wax ni bañ la juree ña fekkoon sa tudd buñ nee tëf nit doom ji tuddee nañ ko diw nee na ñii dañ naan yàlla na dund ñii ne yàlla na barkeel ñii yàlla na am dara ñii yàlla na gudd fan bu yàlla dajalee loolu yëpp nag ci yow kon na ngay def ni koo gis ci gox ba waxuma ci commune département de gox bi la wër yëpp ko ci gis rek da jàpp ni am nga àddiya boo ko amee loolu rek moo sabab sama engagement ci politique maa leen di gërëm maa ngi leen di sant wasalaam say wenn say wenn say wenn say wenn say na ko yanu ko yanu ko wenn say wenn say bu leen tasaaroo dafa naa ne cepp ñëpp déggoon na ne Daouda Dieng candidat la wande Daouda Dieng bu waxee ne candidat la dafa yaakaar ne ay doomam gëmuñu seen bopp waaye ay doomam bu ñu gëmee seen bopp Daouda Dieng day jël candidat am lem def ci gaalam tëj topp ci ginnaaw yu doomam ak ku mu mën a doon ci ay doomam nag rawatina nag doom ji sës rekk ci yow di doom kon doy na ma doy nañu ma àndal kon te Makhtar Ndiaye candidat du gudd ndax ñi war a wax dañoo bari ki ñu doy doy nañu du ñu doyadi dafa naa ne man nag du raay raayal nit wax lu ma lu wax rek gëm naa ko lu ko wax kon Matar yow la mbir mi moom la mbir moom la mbir moom la wasalaam. asalaamualeykum wa mbokk ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen ñaanal yàlla jàmm yal na nu yàlla defal jàmm sunu jotaay bi yal na ko yàlla barkeel yal na yàlla def sunu jataay bi yàlla barkeel ko ñu ngi nuyu ñëpp di balaax ñëpp di balaax ñëpp eh, di leen xamal ni nag Fuuta dafa wax ni foofu ku tàmpi waaye ceeb foofu ku tàmpi ceeb foofu ku tàmpi wax leen loolu waaye foofu ku tàmpi sunu maire fukk at ak ñaar lañ ko far pour mu liggéey 12 ans lañ ko far pour mu liggéey 1960 ak léegi am na dëkk yoo xam ne ba léegi amaguñu ndox te loolu jeex na ci Sénégal dëkk yi nga xam amuñu ndox moom laa bind nii di lañ ko citeel mooy ban dëkk mooy caamaan amul ndox bund wala amul ndox kër mbay pend amul ndox ndaasi amul ndox bëggeel amul ndox kër mbay pend amul ndox waaye loolu jeex na waaye xanaa maire dafa fàtte lii nekk fukk at ak ñaar am sa commune ñu naanul ngay jël 1100 emploi fàtte ñii xanaa dafa fàtte waaye maire xanaa dafa fàtte ñii ma ni jeex na ku fal fukki at ak ñaar liggéeyoo nekk ba añee fàtte la reer fàtte la boo daal may ndékki dalay nax dalay nax rek du di nax du di nax fukki at ak ñaar na dem na dem fukki at ak ñaar lañ ko fol muy ndige rek di digge rek di digge rek su noppay booy na ak digge mani dafa jot mu abal ñu dafa jot mu abal ñu ñu jëf xalé ñu liggé suñu commune parce que dox manu dox ci ko dëkk bi ko doxaloon ko mani man ta dox ci wa dekk ba doxaloon ko nan la abal ñu liggé suñu commune parce que il est l'heure il est l'heure 1960 ak légui amul dëkk bu amul ndox ba mu des dëkk yi ma cité nan dimbali ma am na dëkk yoo nga xam ne yi am nañu courant mais am na ñoo xam amuñu courant boo duggee ceeb commune ceeb ñaari dëkk ñoo fi am moo fi am courant muy Farjoox ak Mirena Ndiaye ak Thiarène Sarr ak Guignaax est-ce que loolu ñooy ceeb est-ce que loolu ñooy ceeb ah dafa doy ma soo jéemee tële da ngay bàyyi jox sa morom mu jéem mënul bàyyiwul lu yàqu mooma mënul bàyyiwul lu yàqu mooma mënul bàyyiwul lu yàqu mooma wasalaamaaleykum rasulullahi saydina muhammad sallallahu alayhi wa mbokki commune bu Thiep ñu leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam ñu ngi Kajoor di nuyu Jean de Mbor di nuyu Jean de Ndiaye di nuyu la jeunesse di nuyu la jeunesse doo ko nuyu mag ngeen jéggal ma su ngeen gisee mu nuyoon noonu dama gis ni jataay bi tey jeunes yu ñoo fi ëpp dañ ni wan ma sa ndawi tey ma walla sa magi ëllëg man nag magamu Sow coordonnateur PDS bu ceeb ànd ak militants yi ak militantes yi ak seen partisans yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax ni leen jàpp naa ni sunu commune bii ni ko sunu frère Cheikh Diop waxe sànq moo ci nekk ku mel na sunu ñoom Baye Moussa Ndiaye ñi toog def nañ ci loo xamante ne ñun ñu ngi koy def ñun ay tuut tànk lañ ku mel na sama ñoom Ndiaye Ndiawar ñoom Cheikh Diop ñoom Birame Kane ñoom Cheikh Dieng ñoom ñëpp li ñu fi def wax dëgg yàlla dañoo war a jël seen relevé tey doxal li ñu yoroon. ànd nag ak la coalition bi nga xamante ni moom lañ fas yéene demee ànd ak notre frère notre sympathisant di sunu xarit di suñu rak Matar Ndiaye. suñu frère Omar Gueye ak waa piir yi nga xamante ne tey ñu ngi ci jataay bi ak waa Pastef yi nga xamante ne ñu ngi ci jataay bi ñu ngi nuyu ñëpp ñoo war a ànd ànd def benn coalition bu am doole taxaw jàkkaarloog régime bi fi nekk ma di leen wax ni su ma waxee war naa wax dama ne woon sax du ma wax 2009 régime bi fi nekk maa nekkoon seen directeur campagne wóor na ñëpp ku di 2014 maa nekkoon seen directeur campagne fii laa naawale woon picc ñoom Mamadou Ndiaye nii kon su ma leen nee 88 villages yu commune bi xam naa ko war ngeen a xam ni man xam naa ko dëkk boo fi dem du ma laajte chef de village ba du ma laajte présidente groupement ba du ma laajte responsable jeune ba. parce que dama ko liggéey dembu te tay dekul man nak dara mu ñoro ma xam nga lu ñor ne jeune yi liggéey lañ fexe ba emploi des jeunes am ci commune bi jeune yi xëy di liggéey di wàcc dugg ci dëkk bi ku nekk fa nga dëkk xëy di fa liggéey di dugg sa biir kër man looloo ma ñor te insha allah dégg naa fi ay wax yu bari te loolu lépp am nañ ci ay programme am nañ ci ay xalaat am nañ programme santé am nañ programme reboisement am nañ programme emploi des jeunes yi nga xamanteni su ëllëgee buñ ñu joxee ñun équipe rigide bii yoo xamante ñoo taxaw war a jàkkaarloo fi nekk incha allah bu ngeen joxee daañoo taxaw emploi ay def emploi des jeunes pour réew mi mën a liggéey parce que loolu rek la ñu soxla ci lu commune ndaw bu liggéeyu rek dugg ci leneen te ñun ñu yàlla mukk zone su commune di dugg ci yeneen. yaakaar naa ne doo dem rëbës mukk fekk fa doomu mbawar amul doo dem ci benn prison fekk fa doomu mbawar ngir yàlla ak lan liggéey kon ñooñu ku leen jàppale ñu dem mais jàpp naa ne nekk fii mën a mën a mën a mën a mën a mën a te mënoo fexe ba sa jeunes yi liggéey man gëwuma loolu il est temps il temps kon daal li ma gëm mooy liste électorale yi ubbi na bu ubbee fu waaye nekk ci Sénégal nga dëkk ci commune bi fexeel ñëw indi sa carte électeur nga inscrit wu ca bureau ba la gën a jage su élection jotee nga dagg sa paas ñëw wote si ñu jële fi régime bi fi nekk wasalaam. kenn ku ne mën a yeewu ko kon Matar kàddu gaa ngi nii. auzu billahi mina shaytaani rajim salaamaaleykum mbokk jullit yi. maa leen nii kay ko sa tur sa sa Matar doomu gaynde doomu gaynde la nga amul ragal fii affaire bi yow la à part keneen dama bëgg gëm sa sa ginnaaw amul tapet barki ku bañ yow ku nangu yow la nga teel a nag mu ëpp chance balaa nga ràññee kaw yàlla na yàlla fay toppal barki yonente yàlla Muhammad yow gaynde nga yow da ngay gaynde parce que Serigne Touba da ngay gañe auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah xàmmee nañu ma xàmmee nañu ma ci mbooloo yi ci jataay yi di jël kàddu yi xëy na boo waxee ñu ni gongo waaye tey jii nu ma koy jële ak nu ma koy waxee xaw naa diis lool ci man ndax waa ceeb yii may tàmbalee ci ñoom bërki démb ba léegi ndax li ma def maanaam li ma defal dama sax rusa xool ni sama bayi, sama yaay sama rak yu jigéen yi sama rak yu góor yi sama mag yu góor yi ñoom ñëpp mobilisé wu duñu xool sax fan la fété mais defar rek ngir bis bi baax yaakaar naa ne lu mel li ngeen ma lebal yàlla rek lay ñaan moom mi dara teewul mu may ma loo xam ko ci def pour seetal xol yi waa cepp gërëm naa leen sant naa leen sant bu amul egg bu amul àpp su ma gisee Baye Kounta sax léeg-léeg damay rus ndax euh, coono bi mu ciy daj su ma gisee Baye coono sax damay rus ndax coono bu mu ciy daj su ma limee damay juum su ma gisee ñoom baax Papa Dieng ñoom Mbaye si xujja affaire bi ñu ci daj man damay yéemu bu ma limee du ma eggal mais waa ceeb daal sant naa leen sant bu am fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di leen wax ni nag man seen doom laa yéen a ma yar xëy na am na sax yoo xam ne su ma génnee wane ko waaye du ma dugg ceeb mukk ba wane ko xëy na tey ñenn ñi bu ñëwoon fekk ma sama bureau wala ñu fekk ma fa may liggéeyee wala ñu fekk ma zone ba ma nekk xëy na sax ci ñenn ñi xëy na gisin bi sama mën naa changé waaye ceeb jaral lu ma wane ko duma ko wane damaa jàpp ni yéenay man maay yéen ku ma ëpp yéene ci dëkk moom du fi am incha allah li ci des nag. mooy ñi ma àndal ci commune bi ñoom it bu ma leen limee du daj Omar Gueye amul benn jour boo nga xam ni suba la wala ngoon la boo xam du déggante Ablaye Ba mii yor na engagement boo xam ne sax moo Aliou Ka ak dañu may tiital léegi-léegi ndax li tax ñu may tiital mooy engagement bi dina kawe kawe kawe kawe kawe ba nga xam te sax ak man niveau ba may nekk affaire dafa may tiital ñi guddi soñ soññi bëccëg Ibrahima Ka yoodi mii ñu ñu ki barki démb cooñ lu mel noonu waaye nag bu ma amee Baye Daouda am Ablaye Diop am ñoom sëñ Birane Kane am ñoom bay Ndongo Tooro am sama noom ñi yaay jibi cëriñ am Mbaye Diop ceeb am ñoom Baye Kunta am ñoom Magamu Sow am ñoom Cheikh Diop Kokki am ñoom Abdou Ndiaye Badem am ñoom Dame Ndiaye am ñoom Dame Sène Maka Ndiaye munuma leen lim am ñoom mbay si kër góoram am ñoom Mbaye kër góoram am ñoom euh, Mor Sarr Thiarène am ñoom Moussa Mame Moussa Sarr am ñoom Mame Sidi am ñoom Gora Ndiaye Merina Ndiaye am waa Sam Ngay am waa Kokki mënuma leen a lim ndax nag gis naa engagement bu commune bi engagé wu parce que yéenee changé mbir yi yaakaar naa loolu parole yi yépp loolu moo ci ëpp solo ndaje mi dafa xat waaye li ma ci bëggoon na njëkk a waajal mooy ñu waajal jeunes yi waajal femmes ndax président de la république dafa am lu mu jël muy emploi des jeunes financement aux familles wala dañ ko tuddee emploi employabilité loolu lépp xëy na dañ amaat beneen bis pour jëmmal ko ngir yaatal ko. waa Kër ba kër yi ñëw nañu gisee nañu teel nañoo ñëw waa ngay ngay tamit ñëw nañu teel nañoo ñëw dëkk yi du ma dugg ci lim ko ndax su ma ko limee du ma matal ndax tey gisuma fi benn commune benn dëkk boo xam dañ ci commune bi teewu fi moo tax du ma dugg ci lim ko mais li ma bëggoon rek pour gàttal mooy woo jeunes ci engagement Diop Thiam gis naa ko bu baax a baax ak engagement bu baax a baax. waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñun waa Kër Bakary daa mel ni dañoo jël benn miir baare ko ci diggante suñu diggante ak ceeb. ndax ab dëkk bu demee ba lu mat ñetti oto wala ñeent man faa jugee ñu bokk ci réew mi dañ ñu ceewaate boole lii démb laa ko yëg tëdd yoon ay jeunes lañ yor bokk ci réew mi ñu war di ñu tudd ni ñu tuddee ñëpp depuis ci suba maa ngi ñëw fajar teel luye sama sareet toog ñuy wax ba mbir yi jeex kenn tudd ñu loolu du yoon te dañoo bokk ci ceeb bokk ci réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah